بل لو تمالأوا على تهريك لسرة فقط على التسريك دون إرادة من الرحمن لحاجزوا عنه بلا تواني mbindeef yëpp buñ bëggoon a jël li gën a tuuti yi bët ci li bët mën a gis mooy sarratu mooy fa ma ni xam ne misaal sarratu yooyu yàlla yow naan ku ma ko defal ku ma ko defal ma fay la moo gën a tuuti ci li bëttum nit mën a gis sëñ bi nee na lu toll noonu bu adduna bépp dajewoon ngir yëngal ko te yàlla andi ci du duñ ko mën a yëngal kon lépp nañ delluwaat ci gëm yàlla te ñu xam ne nag li may jeexale mooy ñun ñëpp li ñu delluwaat ci tuubal yàlla ndax waxtu wi daana fekk nawet bi sori teren euh, taw bi matagut te xasanul bisri yi bañ ko ko waxee daa waxoon ne kenn daa ñëw ne ko man de wax dëgg yàlla doom damaa jafe la doom ju mu ne ko istaxfir rabba del jéggalu yàlla kenn ki ñëwaat ne ko ma ne euh, dex googu ci watu basra daa daw mu ne ko istaxfir rabba del jéggalu yàlla كان كي نيو نكو سوني تول يي دا مارال لو جفاف دا فام مانكو استغفر ربك واي سخنا ماك نيم توغال نيكو واي يو نيتي نيت واخ لا سيني سوخلا تي بوكو ني سوخلا كولا واخ مانكو القران ديك لا لين واخ فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا موي لول كون نك يالنا ني يالا خير تي ني غن كو جيغلو غن كو توبال تا خامني luñ gisut ci lu baax rek ci ñun la waye suñu borom mom yërëm nañu te mi ñuy jéggal mi ñuy wéyalé lu bari kon yàlla nañu jéggal suñu ñaawteef yëpp bu ko défé nak li ñuy ñaanalu tëjee nag moy ñaan gi rek ndax yoonent bi da wax ni bis bi ñu toll fan yi ñu toll bis yu magal muy fukki fan yi ndax ma min ayamin ahabba ila allah alhamalu salih fi fihinna min haasihi al ayaami yaani al asr fukki fan yi ñu top top amul benn bis boo xam ne jëfal ci yàlla lu baax gënal na ko nga jëfal ko ci fukki fan yi ndax mooy wal fajri wala yaalin asrin ci la ne yonent bi nee na wal fajri wala yaalin asrin washafhi wal watri as watri mooy bisub arafa washafhi mooy bisub tey bi te yàlla da cee giñ ci ñoom kon bis yu màgg la kon ñu ngi ciy ñaan yàlla defal Sénégal lii nihmatul imaani xéewalu ngëm yàlla ndax kat. isal imaanu daaha fala amaan am réew buñ gëmul eh, amaan mënu fa am kóoluteef mu defal ñu it matal amaani soog a ñëw nag eh, xéewalu amaanu kóoluteef wa nixmatal it mi naa ni ak xeel xéewalu dalu xel yàlla na ko yàlla def ci réew mi wa nixmatal salaami ak xéewalu jàmm jàmm nag sëñ Tuubaa da ko firi woon daa am ñu ko nit ñi ne ko mu leen mbaa jàmm ñu ne ko de ma ne fa maa fa ngeen ne ña ngi fay jaamu yàlla laa xam ngeen luy jàmm mooy fu ñuy jaamoo yàlla fu ñu dut jaamoo yàlla bu fa jàmm njëkkee du fa mujj wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu